asalaamaaleykum man la Kayz Fof euh, di nuyu sama abone yi Kayz Fof TV yépp di leen massaw ci jafe-jafe yoo xam ne ñoom ñu ci bari ñu ngi koy dund ci période inondation yi euh, di leen ne rek lu ñuy wax ci média yi mooy li ngeen di gis nii ma accroché ko manipulation bu ñu nekkee di nax askan bi pour épargnel Macky Sall lépp loo xamante conséquence incompétence am la inondation avons saisi l'occasion ñu comparer avec inondation qui xamné ne am Europe di len rappeler rek ni man Paris la nek Paris di xam lu xew bu baax fini en Europe lan motax inondation amone en Europe c'est parce que équivalent trois mois de pluie ñenn di naan au minimum deux mois de pluie ça veut dire lu mu war a taw ci ñaari weer wala ñetti weer loolu moo taw ci benn fan wala ñaari fan loolu moo tax inondation yi amoon en Europe ba pare lu gën a tax sax inondation Europe yi c'est parce que dañuy dafa am benn phénomène bu ñuy wooye la fonte des glaciers niveau ndox bi day yokk ci océan yi niveau ndox boobu noonu moom mooy wàcc ci tali yi dugg ci kër yi mais fii nii bitim réew gars yi amuñu problème canalisation te benn président sañul sàcc plus de cent cinquante milliards sacc ko nga ne da ngay régler problème inondation yi régler woo ko ba pare nga amay média yu la ciy jàppale au contraire média yi fii nii Europe yu si bëri askan bi la ñuy défendre donc yéen waa Sénégal ngeen war a xoolaat bu baax seen bopp ngeen arrêté manipulation bi ngeen nekkee di manipuler nit ñi pour à chaque fois euh, de laver à grande eau ni de nous jeter le Dakar du chaque année c'est la même chose depuis indépendance ba y inondation au am Sénégal ñun suñu inondation inondations chaque période hivernale chaque saison des pluies nous avons un problème inondation donc ça n'a rien à voir avec le dérèglement climatique de FIAG. Et Macky Sall mom dafa am promesse bo xamné daf devant tous les Sénégalais Les 750 milliards au bout de 10 ans inondation dina jeex Sénégal La leen ko fu xaliss bi nek mom mo gën ko la c'est très important parce que population yi 27 milliards de caisses. Donc donc ñom inondation est prétexte pour chaque année ñuy sacc ay milliards te moom moo ñu fi waxoon cent 750 milliards yoo xam ne réglé wul dara c'est trop lii bàyyi leen di bàyyi leen di leen di leen jàppale ci ci nii merci beaucoup.